àjjana ah déglu yow sa liggéey rek nga doon def sama liggéey laa doon def waaye yàlla rek a fi de waaye fii ni ñi nit ñi dañuy ñëw di jël jëf di def jëf yàlla kon balaa càng man ñaanal sama bopp rek ñaanal leen yéen ñi ma bokk plateau bi ak ñëpp <laughs> ñun ñëpp yàlla nañu yàlla defal jàmm rek macha allah loolu laa waala ci noonu la ñuy duggee ak ki nga xamante ne mooy Kiné Badiane ah, bu ñu ko waxee rek ah, mu nekk koo xam ne rek sénégalais yëpp xam nañ ko waaye itam ah, ñu koy gis récemment ci démb rek anniversaire u Clara nga xam ne rek tarkal la moom Dore Gueye waneeti na cofeel gi nga xam ne rek daal dina koy am si Clara waaye mel ne rek waalo am na ay audio yoo xam ne daal dina fuité ci ab audio boo xam ne rek ki nga xamante ne mooy Kiné am na ku muy waxal ci ki nga xamante ne moom moo di borom këram waalo ni mbir mi demee waaw Aïssatou mbir mi moom maa ngi koy dégg euh, audio yi. Mhm. comme man naa ne ñu ko ñëpp di déggee rek macha allah. ndax euh, ki ne Badiane mi ngi wax ak benn euh, gel. Mhm. xale bu jigéen bi di ko saaga. te ki ne Badiane nekkul nit koo xamante ne ni nit ku def dara ci réew mi la. macha allah xale boo xamante ne nekkul ci réew bi ci expliqué wut. néew fi c'est que yi à wax dëgg mhm. yàlla. nit ku yem ci liggéey la. nit ku tranquille la. nit koo xamante ne benn ambiance macha allah loo xamante ne day déborder mosu ko fee def man naa ne tey problème am bi tey man dama naan buleet waaw ñu soo ko dégg buleet tey ma dégg ñu ne Kine Badiane wax na sax ba saaga c'est vrai hmm? parce que jigéen nag bu demee ba wax ba saaga ci côté jëkkëram mm-hmm. xolam moo jeex mm-hmm. dëgg la ndax nag macha allah sama moroomu jigéen ci ñi ma ko war a wax mm-hmm. dafa am ñoo xamante ne dañu nangoo bàyyi nga gis la ci sëy nga sëy fa jëkkëru jàmbur jëkkëru jàmbur daal bàyyi fa la tut ah jëkkëru jàmbur jàmbur ca la. Sénégal eh, soppeeku jàmbur amul jabaru jàmbur moo am. Sénégal soppeeku na <laughs> eh, de. jëkkëru <laughs> eh, bàyyi leen ma waalu <laughs> maa baax na. ayca man man mi di renseigné. Ah! nag man man feebar man xaw ma lu ma bëgg fi mu man ñeenteel laay wër wëruma sa ñetteel. waa loolu yow yow lu la jaral loolu yow. kon jënduma ci jëkkëru jàmbur. Ah, ah. mais comme ça ñoom bu dee ñoom ñaar ay ay kii lañu nu mu tëddee sax ay xarit lañu. Mm-hmm. ci li ma dégg ne loolu lañu wax bu dee ay xarit lañu. Mm-hmm. loolu ak diñ déggee audio yi raay naa dëgg la. parce que nit nit ku nekk sa naw la yëfam ko fay bàyyi. Mm-hmm. Mm. bu dee bëgg nga sa rafet. bu dee bëgg nga loo expliqué nañu dégg ko. ndax ñun suñu moroomu jigéen dañoo dundatul loolu. ñun li ñuy dund leen la rek. ñun daal nañ bëgg rek bëgg wala nañ ko naqaral mu naqaral ko te loolu boo ko dee def mën naa ne ah am na ñoo xamante ne buñ duñ ci ànd ak yow mais am na ñoo xam ne duñ la nawloo mm-hmm. ndax jëkkëru jàmbur bu dee sa xarit la bàyyi fa du dëgg mm-hmm. billaay jant koor ne bàyyi fa ndax ah, Kiné bajaan dafa nekk nit koo xam nit ku tranquille la. <laughs> Mhm. dëgg la nit ku tranquille la kon a Badiane kenn waru koo tooñ. c'est vrai est-ce que audio yi est-ce que audio yi nit génneewu ko. boo demee nag nit ñi dañ koo da nit a ko génne. Mhm. ndax moom mosu fee nekk ci réew mi defi leen. Mhm. te nag lu raar la nag ci showbiz nga nekk ci am na ñoo xam ne toujours ñu ngi wane seen bopp ci lu ñu nekk. dëgg la ndax Kiné Badiane showbizut defut neen bu doon showbiz tey jii. Euh, kim doon sëyal tàggoog moom muy ëmmadi mm-hmm. macha allah dafa tàggoog moom tàggoog bu rafet mm-hmm. euh, soxnaas ëmmadi am doom mm-hmm. ndayaa macha allah kooku maa ngi koy nuy moom it jéeg bi sëy normalement la di togg ci mën a di yëkk ci bool baax ba bëgg a dee ndayaa kon bu sekkutoon na kooku lu rafet kooku du am tout tànk ki euh, kii di fa dem kinne di fa dem kinne di fa la kon kinne def dara ci réew mi kinne bu demee ba ojoom jénn wala mu wax ba saaga moroomu jeegam def na ko lu ko metti waaye nag dama koy wax ne na muñ parce que jël bu gëm boppam du def yenn yi. mais mais mais itam dañuy bàyyi ñaar ñu bëggante tamit ah, ñu def tuuta ba bëgg ko yàq loolu tamit loolu tamit neexul ci xol tamit. waa loolu moom dëgg la ñaan ñu bëggante moom wax dëgg yàlla da nga caa war a da ko war a defal sax mais war a koo yàq. Mm-hmm. parce que ñaar ñu bëggante. dafa nekk loo xamante ne ni lu nekk euh, bëggante dafa dafa yéema daal. Mm-hmm. xam nga bëggante ak bëggantu ak xemmem bokkut. Mm-hmm. ndaxte nit ki la xool ba takk la kooku xamewul la laa bëgg kon ki ne bajaan man daal moom laay wax na muñ mhm. yu mel nii sax bu ko ci kenn déggati ndaxte nag kenn mësu koo dégg ci dara macha allah ku fi deful dara na nag mhm. kon bu defee lii ba mu fayete man ki fayete audio yi ki génne audio yi waaw su ma doon ki ne bajaan dama koy teg ci yoon waaw lu tax mu génnee samay wax parce que yi bi mu koy audioonte ak moom mhm. ki ne bajaan jëlul décision pour audio yi ndax lu ko naqare la lu mu doon faj la ak moroomu jigéenam. kon mhm. ko audio yi génn na bu fekkante ne moom euh, audio yi ci ci génn bi te d'accord ci te neexu ko. Mhm. na ko teg ci yoon. Mhm. ndax kii da bañaan defu fi waxu fi. Mm. waaw. macha allah ku ñëpp bëgg la moom ki ne. fecckat bu baax la. c'est ñëpp ko bëgg kenn bañu taakaala may sa gisoo ne tey couple boo xamante ne da nga siiw jëkkër siiw wala jabar siiw faw nga gis kenn ku jóge fële rek pour war caa mën a prof parce que ñëpp xam nañ ne jëkkëram joueur moom kin ne fecc na comme ni ko maam waalo waxee léegi sëy nag ëmmadi mais macha allah mm-hmm. lépp rafet ba kii sama doom la mm-hmm. mu amaat beneen borom kër waaye teewul ma ngay sëy mm-hmm. ah, toog fa mu war a toog andi polémique voilà audio yi génn doy na waar jëkkër ji mooy am fulla jëkkër ji moo waruloon nangu muy yegg si fii jëkkër ji waaw bu demee ba mu yegg si ba kindi def audio. di mhm. bëgg a défendre sëyam ménage di wax ak moroomu jigéenam jëkkër ji mu warul woon nangu mu yegg xaw ma nag. Mhm. est-ce que yëg na ko. falaa falaa doon jëm parce que mhm. tey. maa takk sama soxna. ci mhm. farat yàlla ak sunu su Muhammad mhm. di sëy ak moom ñuy dox mu wóor ma ne kii sama soxna la soxna su baax la. Mhm. kon lu ma nangu kenn di dugg sama diggante ak moom. dëgg ma nettali ci benn anadog sama benn xarit. parce que Cheikhul Khadim sama xarit bi ma nettali artiste la ko man dafa am soxna ay doom. suñu borom dogal mu gis xale bu jigéen mu bëgg di ko doxaan ñu mais dafa xamal xale bi carrément ne ko à partir de dix neuf wala vingt heures bul ma woo sama jabar lay nekkal te dama ko xale bi def mu xale bi def kaf moom mu dëgg xale bi toog ba vingt une heure vingt deux heures mu woo ko téléphone fekk ko ci kaw lalam mu toog moom soxnaam di waxtaan mu woo ko téléphone. Mhm. nee ma xool muy moom ma décroché ko allo papa foo nekk mu ne ko maa sama kër ci sama wetu jabar toog. Mhm. dama la soxla mu ne ko noonu mënuma wax ak yow téléphone parce que sama jabar laa toogal. Mhm. bugguma lu ko naqari jabar jaa ngi koy dégg xam nga ko sauvé na mariage am. nee na ci ëllëg sa la bàyyi ndaw si. parce que ndaw si dafa jug pour yàqal ko. dëgg la mm. ba amee ful la moom laa la waaw góor góor yaay téye sa sa soxna xam nga ko boo gisee ne kii nga bëgg a àndal sax wala kii ngay waxal sax wala kii ngay jéem a siqal xaritool sax gis nga ay détails yu mu bëgg a wa nu may waxee sax teel koo freiné mhm. ndax soxna bokkul ak gel bokkul ak xarit du benn ki la jural say doom toog sa du la sëyal euh, man dama naan liggéey wàcc rek mu ñëw jox la ndox rek kooku mënoo koo fay mhm. am naanal waxuma la ak mu lay fóotal di la toggal mhm. di la yàkkal sama benn xarit boo xam ne sama mbokk taalibe la euh, ma tëjee foofu moom soxnaam moo ko soppe parce que Cheikhul Khadim moo nettali. Mhm. da koo takk luyul ko appartement bu la mu dara manqué ko fa mais moom ne moom dafa nee na dafa mën doxaan bëgg doxaan danaan dem doxi ba ay une heure du matin. Mhm. deux heures du matin. danaan dem ba trois heures du matin dem ci boîte yi doxaani bu ñuy sonné soxna si yeewu ci ay nelaw ubbil ko li mu koy li ko jox mooy ndox mu naan. Mhm. bu duggee ci sangu defar na reer bi nee na soxnaam li jël lu ndax reer naag reerul de defar na reer bi ñëw taajal ko. ba pare toog reerandoo ak moom. pare nee na bu ñu tëddee ci kaw lal bi lu mu ko lu mu bëgg mu jox ko. ndeysaan nee na soxna si di di di ko doxalee noonu boole ceeg pat ak organisé. waaw nee na moom moo dem ba xam ne lim nekkee du yoon. Mm-hmm. mu yedd boppam. Mm-hmm. ndax dégg nga ma. Mm-hmm. mu yedd boppam kon loolu kenn mënu jigéen kenn soxna kenn mënu ko fay. aman ah, man dama naan moom ju moom jëkkër ci moo warul woon nangu loolu keneen du jóge feneen bëgg dugg sama ménage bu dee nag yëgu ko ba kooku ñëw bëgg a indi ay manigas mais na jël ay na jël ay défense protéger soxnaam macha allah na ko woo sax na na xam ah. voilà mais na xamal soxna sax ne na ko audio sax bul ko defati man dinaa ko lijjanti man parce que yaakaar naa soxna si bu xamul woon jëkkër ji wala bu ñu séquloon dara wala bu ñu xamantewuloon doo am accès ci waa ji mhm. kon waa ji moom mooy góor na téye soxnaam quoi bu mu xoolee ba bañ koy yàqal couple am man loolu laay wax man loolu laay wax waaw mm. euh, yaakaar naa ne euh, mm. Maïssa Thiam li mu wax kenn munu ci kenn mënu ci rek dara mhm. c'est-à-dire il góor ñi tamit euh, parce que bu ñu nee sëy. Mhm. soo seetloo jigéen day defe day defe ne jigéen rek ko moom. Mhm. mais tey laay wax ak euh, benn proche di ko wax na ko sëy euh, góor dafa war a xam ne da ko war a def. Mhm. cest bu ñu nee sëy rek da ngay jigéen day defe ne moom kese ko moom góor ñi bàyyeeku ba seen responsabilité duñ ko jël. il faut ñu comprendre des fois da ngay gis ay kilifa yoo xam ne lépp lu yàlla war a maye may na leen ko pour ñu nekk à mais daf leen di nga mhm. gis koo xam ne journée 3000 francs lay fayeeku mhm. mën a gérer faamam mu yem ci li mu yor mu jox ko cër mhm. jox ko wàcc waayam cest à kon lan mooy problème bi lan lay def ba récupérer maanaam nolog suñu maam yi ñu daan yoree ñeenti jabar seen doole du bari mais pas-pas mooy tax tey jii kenn du bougé c'est-à-dire loolu tamit dafa jara a xool am na loo xam tamit dañ koy jàngal jigéen góor day sëy jigéen day sëy pour ñi ko war a xam-xam ko mais bu nee dañ koy sëf lépp jigéen des fois nga choisir moment boo xam ne carrément yaay xool li neex sa soxna. mu mm-hmm. mais mais dafa am mu jug ci lal defe na tey jii daa war a jug toppatoo la nga ne ko nga ne ko tëddal. Mm-hmm. mais mu tëdd la nga def parce que tamit nan waxante dëgg dafa am loo xam ne il ñu comprendre ko. muy lan xale bu juddu. di toppatoo. Mm-hmm. mu mel ni mu war a mel nga gis ko daal di jooy. kooku waroo koo mën a indi taraan ko kaay ma souffrir loola. kooku da kooku parce que dafa naan en philosophie dañ lay wax ne la xale bu jigéen su demee ba xam ne papaam mënut te nekk faram papaam lay wëri muy jëkkëram su ko gisul rek du fa mën a toog mhm. c'est très important. Ah, xale bu góor bi tamit. waxaat ko xale bu góor bi da ngay gis booy nàmpal góor. Hmm. mu ne muy nàmp ba yàgg di la xool ngay kaf ak moom sa doom bu góor. waaw bu demee ba xam ne man mënumaa séq ak sama yaay dara yaayam lay wëri muy jabar. Hmm. c'est il faut ñu comprendre en philosophie dañ la koy détaillé. Hmm. góor tamit noonu yaayam lay wëri jigéen di wëri papaam. moo tax jigéen boo ko mënul téye comme téye bi bàyyi di téye jabar loo munti am suur la. da ngay gis koo xam ne xam nga il à l'aise yor ay milliards am problème mu téye jabar. parce que dafa am lu jabar di soxla des du xaalis mhm. du matériel mu bu ndaw lay doon nga tëkoo génne. nit dina de waaw. <laughs> dina jël dina jënd jënd oto jabaram dina ko mere mu jënd oto jox ko sax non nit dina nit dina jënd nit jabaram dina ko mere mhm. mu jënd oto jox ko defe ne mer jeex na mhm. sa jabar da nga koy benn petit mot boo xam ne des fois jabar ji moom lay xaar hmm. benn petit mot bu jabar ji di xaar yow nga defe ne ay oto laak ak villa boo koy offrir c'est-à-dire nga wan ko ne ko carrément ñeneen ñi nga xam ne ñoom nga yaakaar. Mhm. yow tu es si lumineuse. ba nga xam ne ñeneen ñooñu ay ombre la. jabar dafa war a yëg ne jabar dafa war a yëg ne man rek maay jigéen. Mhm. ci àdduna. c'est vrai te loolu góor moo ko war a def. merci beaucoup mais dafa am góor ñoo xam lépp doole la. Mhm. mooy offrir la kër offrir la oto. c'est ça toog salle bi sax. Euh, nga ne Mounass. <laughs> nga ñëw la jox ma commande bi. c'est ça c'est ça en tout cas doy na waar góone. amoon Kiné moom en tout cas dafa nekk koo xam ne ñëpp ko bëgg. moom Kiné Kiné moom ñëpp ko bëgg fi ma waale daanelee rek fa laay ñëwaat Kiné dafa nekk nit koo xam ne. Mm-hmm. ci ci fecc kat yi wala ci showbiz bi bokk na ci xale bu am yar. Mm-hmm. benn éducation de base bu am solo la. dafa yaru gis nañ ko tey bu doon sëy ak Amady Badiane ñaaw fa tey gis nañ fi ñoo xam ne heure bu ñu tasee mhm. émission kaay jooy ba la ñuy dem dëgg la yàq seen jëkkër mhm. yàq seen ménage jooyaale mhm. duulaale <laughs> bëgg bëggu leen yërëm ca kaay jooy ba rek lañ jëm <laughs> jooyee jooy pour sénégalais yërëm leen yàlla ba wut sa clip nga ca bës kaay jooy ba rek te moo nekk seul moom ci référence yi moom boo Viviane